Euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla mbokk yi euh, dañuy euh, rafetlu tey décision bu président Macky Sall jot a jël mooy renoncer ci troisième candidature am loolu mooy respecter constitution bi mooy benn bu ci tegu bi tamit mooy respecter cadre bu mu joxe bu mu joxoon askanu Sénégal bu muy euh, proposer askan bi ñu votel ko wii ci référendum bi euh, ma bëggoon dellu siwaat euh, pour waxaat que ba ñuy dem ci dialogue bi te ma ciy insister parce que tey dafa am ñu bëgg lëndëmal xel yi bëgg yàq xol yi ak yàq xalaat yi su ma baat ci kaw Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar Sénégal dañ koy pencoo waxtaane ko ngir ëllëkam

ndax xel yi mën a dal te lu tax may insister ci loolu parce que daanaka dafa am ñuy fural wante askanu Sénégal yan lay waxal Sénégal su ma baat ci kaw te ñëpp ak may dégg amugul benn acteur politique fii tey Sénégal bu fi am 30 pour cent premier tour élection présidentielle moo tax may sakku ci président Macky Sall euh, na def kenn kàttanam ba élection bi mën a nekk inclusive bien sûr pour nous respecter euh, les conditions pour mën a bok ci élection yi parce que euh, élimination, élimination loolu mom lañuy ñaawlu moy sélection bu ñu bëgg organiser à la à la place de élection wante nak amna ñu ngeen xam ne ni euh, du ñu parce que tamit dañu bok ci république té république dafa am loi ak ay texte wante ñu ngi insister ci li di l'inclusion euh, de tous ci élection yi parce que lu may wax ni tax am solo dernière élection bu ñu amoon Sénégal mooy élection législative ñu ànd ci ak njabootu président Abdoulaye Wade ci cadre intercoalition Yewi Wallo. donc mbooloo boobu bu jógee woon bàyyeeku ci ñaari coalition yi créer intercoalition moo joxoon élection yi ñu am à peine 51%. Quand un pour cent kon tey waa PDS su ba dem élection am candidat ñun waa taxawu Sénégal avec la gauche euh, ñu ne tamit dañuy am candidat mu am ñeneen tamit yëkkati seen loxo ne dañuy doon candidat gisuma lu tax tey ñu bëgg éliminer ñenn ñi wala ñuy joxe impression que ñu bëgg éliminer ñenn ñi naam am nañ droit fural wante suma ma baat ci kaw amul kenn kuy gagné élection Sénégal premier tour amul kenn ku mu neex nag yëkkati loxoom ku mu neex fëgg dënam dama ne su ma ci kaw at ci njabootu Ablaye Wade ak njabootu Yewwi Askan Wi ñoo lëkkaloo joxonté loxo pour am à peine 51 kon nak nañu respecter Sénégalais parce que gisuma tay nak la njabootu Ablaye Wade mëna am sen candidat njabootu Khalifa Sall am sen candidat ñeneen am sen candidat ñet fëgg dënam né tay day gagner premier tour Motax may sakku wat ci président Macky Sall Euh na may ñep afia ñep mëna a bokk ci élection yi ndax xel euh mëna dal xoli mëna mën moy suma gëm-gëm mooy suma gis-gis mooy suma xalaat beneen bi nag mbokk yi un appel à tous nos amis de la gauche tey candidature bu ñuy porter à travers la modeste personne de Khalifa Ababacar Sall candidature Bobo, c'est une candidature de principe candidature de valeur candidature d'avenir euh, naam dëgg la am na ñuy di

te incha allah am yaakaar ci ay fan yu néew dinañ mën a toog waxtaan waxtaan waxtaanu Sénégal ak waxtaanu ëllëgu Sénégal parce que ku tudd Sénégal di nga tudd tamit euh, démbawu Sénégal te ku tudd te démbawu Sénégal di nga tudd lu parti socialiste jot liggéey Sénégal. Euh,